AFP sax ba léegi. waaw AFP du ma fa mos a jógee parce que AFP parti ba ko ki ko moom sama woy jur la muy Moussa Fagnès ma di ko nuyu. taxaw di ko sa maanaam taxaw ci élection yi rek comme ni ñu taxawee rek xam ne AFP dafa war a am cëram coalition Benno Bokk Yaakaar lañ bokk. di ñaanal président Macky Sall élection yi ñu jëm mu am ci majorité assemblée nationale ba mën a gouverner li des ci liggéeyam mu man ko eggale naal yu mu naal ak yi mu bëggat naal yëpp mu mën ko def. kon ma bëgg rek Benno Bokk Yaakaar ñu ñëpp ñu ànd unité ci suñu biir juboo jàppalante ba président Macky Sall ku ne xam na réalisation yi nga xam ne tàmbali na ko ci réew mi ak yi mu bëgg a def te président Macky Sall ku ne xam na ne am na yar am na ay teggin am na xam-xam te liggéeykat la kon ñu koy jàppale bu ñu àndee nekk benn rek moom it buy defar liste yi mu xool bu baax xam ne coalition la ñu nekk bañ a xeeb kenn ñu àndandoo xàccandoo tóorandoo li ñu bëgg mën nañ ko am. kon jàpp nga ni mën nga demaat assemblée waaw xam nga assemblée nationale moom dogalub yàlla rek la bu ñu fa demee baax na bu ñu fa demul baax na ndax ñu ci li ñu sëñ bi nàmpatale ak ni mu ñu yore woon moo ëpp salaire u assemblée nationale. assemblée boo xoolee 1 million 300 70 millions la 5 ans yi quinze millions la ma ñuy indil tey. kon donc. mu jóge ci madame Mbacke sama jabaru frère Serigne Mamour kon donc xaalis moo ñu yóbbu assemblée nationale ndax da am nañ ko démb ak tey soog a ñëw du ay lenn moo ñu fa yóbbu lu may taxawal fa askan bi ak war faa dem dem fa suñu fa demee baax na bu ñu fa demutit du tee ñu des Benno Bokk Yaakaar di jàppale président Macky Sall parce que loolu lañ gëm. man en tant que Moustapha Niass mi ngi jàppale Macky Sall dama koy jàppale. kon 2024 pare nga pour jox ko troisième mandat. xam nga troisième mandat moom moo ne bu ci kenn wax. kenn xamagul parce que am maanaam xam nga fi mu ne boo xoolee président Macky Sall nekkul ci troisième mandat ci deuxième mandat la ne parce que sept ans yi bokku ci parce que noonu la Ablaye Wade defoon ñu di ko coow ak a wax mais daf ci am droit mandat sept ans bi bi mu ko commencé daf ko bëggoon a delloo ginnaaw def ko cinq ans. ñu xamal ko ne loi du dellu ginnaaw mu def sept ans mu pare ñu joxaat ko deuxième mandat deuxième mandat bi nag bu ko neexee moom des na ci moom mu def ko mais bu ko laajee am na ci droit te seen ñu seen xel màcc ci loolu xam nañ ne président Macky Sall am na droit defet beneen mandat wu cinq ans ñaari mandat cinq ans lañ wax yu tegaloo mais waxuñu mandaa sept ans ak mandat cinq ans bu tegaloo loolu moom waxuñu ko man ci sama gis-gis man su ko bëggee dama ta Moustapha Niass bëgg jàppale ko ma jàppale ko man man Moustapha Niasse rek laay déglu bu ne wert na wert na <laughs> bu nee ñuul na ñuul na parce que awma lu may namm ci politique parce que su ma ci namoon dara <laughs> ba léegi xool naa foo xam ne tey jii bu ma fa saa su sur certain damay nekk député mais soxlawuma ko li ma soxla mooy jàpp sama sama sama sama sama dignité man transhumance gëmuma ko. doo jóge doo jóge foofu. <coughs> maanaam tey bu Samba Yàlla créé woon parti du ma fa jóge Moustapha Niass ak Samba Yara c'est la c'est la même chose sama bàyyi la kon donc gisuma lu may tax ma jóge fa day jàppale Moustapha président te président Moustapha Niass dafa bëgg président Macky Sall <coughs> jox ko jàppale ko kon donc ñun dañuy des benn bokk yaakaar rek di jàppale président Macky Sall lu mu xool ba tracé ko xam lii moo gën loola moo gën mais nag buy tracé tamit na tracé li nga xam ne militant yi parce que tamit base politique da ci am solo parce que tey élection yii ñu génn nga xam ne dañoo demoon assemblée muy équipe juróomi nit ñu gagné ñu changé ko jël juróomi teg fee pourtant xeexuñu ndax man sama carte benn bokk yaakaar mais ñiy ànd ak yow ñooñu dañuy sanctionné mais tax kenn ku ne daal sa cër nañ la ko jox coalition la ñu wax nañu def doxal coalition bi kenn ku nekk ñu xool la nga am ñu jox la